mais dafa am dama koy dama koy teg ba ngeen deg audio yi mu waxante ak Mariam parce que Mariam dafa nek jigen bo xamanteni si da daan daan dolem ci ni nu ko waxe ak mom ni moom ni ko expliquer ñu boole ko sëñ Modou Lo Ngabu mu ñew jox ko café jox ko ay siiw ak yoy lu mu daan liggey diko yobbu ci xaalis ci mom léegi serigne Modou Lo ngamu nak nan ko dama la bëgg ki yëg manam ñam ak affaire yoy ba man ma ngi ay vidéo Serigne Modou Lo ngam yu ñaawa ñaawa ñaawa yo xamne yu bes tak la maa ngi ko téye ni serigne Modou Lo ngi taxaw ci ablay bi diko def ni ni ma ngi vidéo yi man yor na lépp waaye nag du rek jël ay vidéo wala ay ki di wax ci Serigne Modou Lo ngam ndax kilifa la amna ñuko bëgg amna ay talibé amna ñuko sopp dara sun Modou Lo mi man na ma bay wala mu man ma mam motax lepp lu may traité tay rek dama bëgg ñu rafetal ko ci respect tek ko ci dignité du am ki dara mais dafa am fu bëgg a waxtaan ak yeen dafa am lu ma bëgg a waxtaan ak yeen sëñ Modou ngam Ngambu Serigne Touba doyloo Serigne Touba yaakaar Serigne Touba ndax yow manam Serigne Modou xam nga tahu def nga fi ay vidéo def nga fi ay audio ndax dégg ngeen ma yëkkate sama lam bi ka serigne Modou Lo ngam mu déedéet su ko def man may contre di défendre daw bokku na ci ñëkk taxaw man aadama défendre la mané serigne Modou Lo kilifa la même bu défé ri dafa juum kilifa dañ koy sutural dal ci kaw no stress aduna bi yépp sétan nañ ko parce que man noonu la mel ci kilifa dini mais ren nga ñëwaat serigne Modou Lo waat nouvelle génération bu mu demee waaw ñoom ñi dëkk ak Serigne Modou Lo Ngambu ay taalibeem bëgg néeg bi ñoom ñépp ñu toog leeral situation bi ni mu demee parce que ñi ngi naan moom ak Aïda la audio yi deux mille vingt deux la ñii naan Marème bu bees la mais man yónnee nan ma yépp ma téye ko dari jang ke ujui parce que dama bëgg déglu ujui dama bëgg déglu ujui serigne dulu lu muy wax bapak ni ba paré ñu doga damay ëmbal sa lëfal nday de tojal sa cott nday waay yaa may daggaloo laay yaa ma jox connexion damay ubbi sa lëfal nday de léegi dañuy dégloo doo audio yi ñu jàngat serigne Modou Lo Ngabou li muy wax ak ndaw si ak vidéo yi ko yónnee mo man duma ci ñew ndax loolu ruus na ci wax te ruus na ko tek ci live te duma ko def mukk mais ñom tamit dina deglu seen version ñu man ma wax serigne bi duma ko dépasser limuy wax ci audio mom la leen di tegal ñu do situation bi duma ko saga nday duma ko xass ndax nit ku nekk da ngay jum di def erreur te ba pare mag la te kilifa la mais ñom dara leral ka bi dinañ dugg ñu leral ko mais dañuy deglu audio yi ñu xol bu baax lu ci wax en attendant ñu déglu audio yi ensemble bismillah firma balaa neex koy laas ma ah, tey ma am na yu bëggo nek su bëggo na xol sama ñaari bëpp yi ci kaw weer yi moom ari arriéraat ba xam ñaari yan lay wax seen lafal nday boole seen tuunu nday ba nga xam ne kenn dootuñu ma jotati ma continuer kaa